asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk téléspectateur u Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ni ngeen ko xamee nag Equivox TV moom daf fi nekk pour lépp lu nga xam ne daal lu concerné sénégalais yi la ñu di ci taxaw di leen ko jox comme ay xibaar ngeen koy xam tey nag ñu nekk fi nga xam ne nii moom mooy comité sénégalais de droits de l'homme suñ ko waxee nag mooy ñoom ñooy saytu lépp luy àq ak yelleefu doomu aadama rawatina sénégalais yi ki nga xam ne nag moom la yàlla teg si bopp bi muy mètre Pape Sène moom la ñu seet si tey maître Pape Sène nekk tamit maire commune Ndondol moom la ñu seet si tey yàlla def tamit mu nekk membre APR fas yéene waxtaan ak moom ci comité bi ni muy doxee actuellement ak euh, maanaam daal mu gën a indil ay leeral ci lan mooy comité bi ak ban taxawaay la am tey sa ci li Sénégalais yi di dund ak yu mel ni ki noonu moo tax tey ñu fas yéene seq ak moom waxtaan euh, maître Sène ñu ngi lay nuyu di la ziar. Euh, jërëjëf Babacar ñu ngi lay euh, fay mm-hmm. euh, di leen dalal ak jàmm di nuyu mbokku internet yëpp mm-hmm. rawatina Equivox Vox waaw Equivox waaye mm-hmm. vraiment di am mbégte bu baax dalal leen fii ci comité sénégalais des droits de l'homme nga xam ne bon institution national la état bi moo ko créé. Mhm. Euh, muy pour citoyen yi muy pour képp koo xam ne nii am nga jaaxle ci sa àq ak sa yelleef. Mhm. nga mën fee ñëw ak képp koo xam ne nii également da nga bëgg a xam nan lay doxee comme ni nga ko waxee nga ñëw mhm. fii ñu xamal la lépp. vraiment ñu ngi leen di dalal. Mm-hmm. di am mbégte bu baax également jàkkaarloo ak yéen pour waxtaan ak sénégalais yi. Mm-hmm. Euh, suñu premier laaj ci mooy ñu ngi dégg maître Pape Sène ci boobu ba tey ci ay ay at euh, si débat yi télévision yi ak yu mel ni ki noonu mais bëggoon nañu xam ci lu gàtt rek maître Pape Sène tënkal ñu mooy kan fu mu jàngee ak euh, lan moo ko dugal ci métier avocat yu mel ni ki noonu quoi. waaw en fait maître Pape Sène bon citoyen sénégalais la dëkk ci Bawol plus précisément commune de Ndondol. Ndondol nag mu ngi nekk ci région de Diourbel département de bambay ci arrondissement de Ngoy euh, man Ndondol laa jàngee suma cycle primaire yëpp mooy maanaam CI ba cm de ci année blanche bi en 88 ci laa am suma entrée en sixième euh, jamano yooyu sax Ndondol amuloon collège d'enseignement comme ni mu mel ni tey nga xam ne am na collège am na lycée ci kaw loolu bi ma paree ci lañ ma orienté au niveau de du CEM Djéri Fall foofu laa defee suma sixième ba troisième am fa suma brevet de fin d'études moyen bi ma fa jógee ma dem boobu jamono yooyu la lycée Bambey également di soog ubbi parce que jamono yooyu ci la état bi doon ubbi les lycées au niveau des départements Bambey bokk ci premier département yi njëkk a am lycée pratiquement parce que ancienne école normale régionale bi mhm. moom lañ transformé seconde C bien entendu parce que damay rappeler ne au départ j'étais un scientifique donc bi ma paree ci la transféré ñëw au lycée Malick Sy malheureusement benn retard bu ma accusé woon dû au transfert entre Bambey ak Thiès taxoon bi ma ñëwee au lieu que ma continuer suma cycle ma continuer suma option scientifique ma dem série A littéraire parce que bon dama boole woon également euh, nekk koo xam ne nii j'étais bien en littérature ba pare aussi amoon ay j'étais bien en en maths et en physique mais après retard boobu taxoon bon bi ma ñëwee ma ma ma mujjee dem def li nga xam ne que mooy série A def au lycée Malick si sama première sama terminal en 95 ma am suma baccalauréat bon comme man mbirum droit daf ma ma a intéressé parce que bon xam nga boo juddoo ci àll bi yaroo fii gis yenn xeetu injustice yi nga xam ne yow bi ngay nekk xale surtout bi nga nekkee ci sa digg jàng ngay dem di wut ay kayit mu lay jafe nga gis daal yu bari yoo xam ne que nii véritablement du dëppoo ak luy mën a jox nit ki sañ-sañam bu baax loolu moom mu gënoon motiver ma ne man sama sama sama sama jàng bëgg naa nekk koo xamee ne que nii vraiment fa ñi àttee parce que pour mun a taxaw ci justice xeex injustice également mais may rappeler ne également ci sama jaar-jaaru avocat am naa ay raaya yoo xam ne que nii am naa ko ci parce que nekkoon naa secré premier secrétaire de la conférence du barreau parce que xam nga barreau bi chaque année dañuy organiser ay promo bu ne dañuy organiser lu ñuy wax ay genre conférence de maanaam euh, lauréat de la conférence du barreau donc ma nekk premier secrétaire bi. ok jóge fa également nekk le premier lauréat du concours international de formation des avocats francophones au Bénin Bénin dem nañ fa def un mois quinze jours. réewu Afrique yi nekk ci francophonie ñoo fa daje woon def fa benn formation ci wàllu wàllu avocat yi ñoo fa daje woon ay avocat kese donc bi ñu paree ñu def benn concours de plaidoirie bon ma yàlla dogal ma nekkoon premier. donc kon nag ndamu Sénégal mais également ndamu avocat barreau Sénégal yëpp ak famille judiciaire bi donc jaar-jaar yooyu yëpp également. Mhm. am nañ ko fi ci suñu biir liggéey mais ñu jàpp ne rek tey fi may ak yow c' est l'homme politique maire membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar membre de euh, l' pour la république mooy ak yow. C'est également le défenseur des droits humains, président du Comité sénégalais des droits de l'homme, institution nationale, mais c'est également l'avocat parce que depuis maa ngi nekk avocat à la cour inscrit au barreau de Dakar mooy wax ak yow. am na solo macha allah jaar-jaar bi am na solo mu mel ni ci loolu ci la ñuy rebondir wala ñu continuer ci parce que dugg nga ci comme politique bi ñu ko wax ci 2014 nga nekk maire defe naa ne boobu ba tey yaa nekk maire commune Ndondol bu si commune Ndondol par rapport gëstu yi ñuy def wala dégg-dégg yi ñu fay am est-ce que tey maire bi nekk ndondol di maître Pape est-ce que besoin yi nga xam ne ñoom la doomu ndondol yi doon xaar ci maire en tant que maire commune est-ce que ñoom ñu ngi gis seen bopp ci loolu sama lu jëm ci santé lu jëm ci ndox mi lu jëm ci wàllum tali lu jëm ci loo xam ne daal c'est intérêt la bi nga xam ne c'est intérêt commun est que tey maire bi mën na dóor loxoom ci taabal ji xam ne moom tey bu tëddoon dina nelaw ba yandoor kani lu bare bare tey ci commune bi def na ko wala bu fekkente ne am na loo xam ne boobu amagu ko fa. waaw ñun en fait perception lañ mën a am maanaam yëg-yëg mais xëñ na waa ndondol ñoo mun a taxaw répondre concrètement ci sa question mais mën nañu wax ñun li ñu fa def euh, xëñ na am na ñu koy gis am na ñu ko dul gis waaye damay faral di wax ne li ne këtt na jonn kenn du ko jeex maanaam on ne peut gis dara loo xam ne que nii lu ne këtt la nga bañ na du loolu mais li ñu mun a wax daal. mooy bi ñuy jël ndondol képp ku jël ku dëkk ndondol xam ne ne en mille 2014 ndondol dañ ko jël ci situation bu metti parce que wax dëgg fa yàlla dañuy doon door a dugg ci communalisation intégrale mais bi ñuy ñëw di jël ndondol jafe-jafe yi amoon ndondol yëpp ñun ñëpp ku dëkk ndondol rek xamoon nga ko déjà ci ñaari volet lay jël yoo xam ne que ni liggéey nañ ci walla ñett liggéey boo xam ne que nii képp ku demoon tey ndondol jóge fa 2014 ñëwaat fa tey en 2021 di nga xam ne am na soppeeku. ndondol bi ñuy ñëw fekk nañ jafe-jafe ndox bu tar defe naa ne loolu seen n'est secret de polichinelle ñëpp a ko xamoon que ndondol daf doon dund problème mu ndox tey boo demee ndondol fi may wax ak yow nii di nga gis ne que kenn dootul wax ne am nañ problème mu ndox mais xëj na la demande moo ëpp lof bi ñu ñëwee li ñu njëkk a attaqué mooy le château d'eau central bi nga xam ne moo nekk ndondol tey couvrir les trois quarts du réseau fonctionné wul woon bu bees la woon mais fonctionné wul ñun ñoo ko mettre en marche à partir du budget loolu permettre nañ ñu couvrir les trois quarts mais bi ñu fa jógee également dañu étendre réseau bi ci ay villages yu nga xam ne que nii à l'origine bokk ca woon yaay gi nga xam ne euh, c'est un village de la commune de Ndondol bokkul woon ci réseau Ndondol ñun ñoo ko boole suñu programme ba tey mu bokk ci réseau Ndondol le de Mbomboy ak Mbomboy 2 mosul bokk ci réseau Ndondol ñun ñoo ko boole ci réseau Ndondol Euh, ak li nga xamee ne que mooy également dans la dans dans le village de Ngeme Issa am na ay amoo yu fa nekk yoo xam ne mosuñu bokk ci réseau Ndondol ñun ñoo leen te boole lu mel ni Kër Julde ba pare également dans le cadre euh, de l'intercommunalité ñu fexe ba suñu amoo yoo xamee ne que ni dañu frontalière ak yenn commune voisines yi lu mel ni Ndiène Sirax fexe nañu ba euh, ndox mi egg foofu ci coopération boobu mën nañ ci citer fi nga xamee ne que moom mooy. dëkk bi ñuy wax euh, kër sëñ moor kër sëñ Mor Ndiaye mais également Bournding mais ñu boole ci également Nguy Ndiaye tout récemment parce que Nguy Ndiaye tout récemment yóbbul naa leen ndox boo xamee ne que ni bokkul ci réseau commune Ndondol mais ci beneen réseau la bokk donc loolu ci intercommunalité lañ koy liggéey. di ko ci def donc voilà ci yeneen village yi également village bu mel ni que amoo bu mel ni que Njàngaay bokkul woon ci réseau Ndondol mais ñun ñoo ko fa yóbbu. amoo bu mel ni que xasab également bokk ci village Doxal Jàmm bokkuloon ci réseau bi ñun ñoo ko fa yóbbu et cetera et cetera donc vraiment non seulement dañoo rétablir réseau bi pour que lañ fa fekkoon mu branché ci réseau bi ñu mun a am ndox parce que amatuñoo ndox mais dañ ko étendre boo demee également à Ngemaan bi nga xam ne am na un château d'eau autonome c'est la même chose bi ñu ñëwee également am na ay gox-goxaat yoo xam ne que ni amuñoon ndox lu mel ni que Titine lu mel ni que Mbelem lu mel ni que Minangokoli yooyu yëpp ñun ñoo leen yóbbul ndox ba ñu mun a jot ci ndox bi mais également changer li nga xam ne mooy le réseau bi nga xam ne dafa vétustoon ci yenn amo yi comme fu mel ni par exemple Kër Malick Sarr amatuñu woon ndox ñun ñoo ko changé fu mel ni que par exemple Samxaadaan ñun ñoo changé réseau bi mettre ko à à neuf fi nga xam ne que également mooy euh, yi ñun ñoo ko donc vraiment def nañ ci liggéey bi mu ci ay ba tey xëj na kuy wax da nga naan demande bi moo ëpp mais nag tous les trois châteaux d'eau de la commune de Ndondol ñu ngi fonctionner donc dañuy ñaan xëj na tey demande bi ni mu mel ñu am un quatrième château d'eau diggante Mbomboy ak Ngeme su ko defee dinañ mën a débrancher Mbomboy ak Ngeme dinañ mën a débrancher Mbomboy yóbbu ko moo Ngeme ñu autonome mais am nañ également ren benn projet boo xamee ne ni xëy na bu ñu ko dawalee te danañ ko dawal incha allah dinañ permettre également ñu mun a désengorger le réseau central. mooy tey umpalewu leen ne Ndiédiène am na un château d'eau parce que ñun dañu àndoon ak Caritas dans le cadre d'un projet réhabiliter le périmètre maraîcher de Ndiédiène nit ñiy bay mbayum noor parce que le maraîchage a repris. sa vie normale à Ndiédiène mais dañ tabax château d'eau boo xamee ne que nii mën na jëriñ pour naan ndox mais également pour mbay château d'eau boobu malheureusement ba fi may ak yow nii gasoil moo koy doxal bi ñu ko maraîcher yi waxee am na benn proposition bu ñu leen def mooy maanaam commune bi ren ci 2021 bi inscrire nañ ko te xaalis bi yemb na ñu ngi ci étude technique yi pour que ñu mun a pare jox entrepreneur bi liggéey bi dañu war a xëcc courant ba ci château d'eau boobu léegi les villages de waxal jàmm waxal jàmm 2 ak njeejang ak amoo yi ko wër yëpp dañ leen di connecté ci réseau boobu déconnecté leen ci réseau ndondol dina tax xëj na réseau ndondol bi nga xam ne demande bi dafa fort trop dina allégé wu ba mën a jox ñeneen yi defe naa ne yooyu ay xeetu liggéey lu nga xam ne que ni ñu ngi koy def vraiment pour mun a pour mun a ñoŋal affaire yi mais également ci beneen fànn bi ñuy ñëw ndondol ñun bu weesoo ndondol centre ci wàllu courant mm. bi nga xam ne ñetti village ñoo ko composé ci 16 yi muy ndondol Sessène ndondol Nguy ak ki nga xamee ne que mooy ndondol wolof benn village rek moo fi amoon courant muy Njéemaan donc au total kon 2014 sur 16 villages 16 chefs de village 4 chefs lieux de village rek ñoo ci amoon courant donc kon mu desoon 12 mais ci suñu ànd ak président de la république parce que looloo taxoon également ñu ànd ak président de la république ci dans le cadre du PIDC ak dans le cadre du programme ASER fexe nañu ba ci 12 villages yooyu nga xam ne desoon na. huit yëpp tey yóbbu nañ fa courant ci chef lieu yi ñaar ñoo des yo ñaar ñi am ci huit yooyu ñaar ñoo nekk en en situation di xaar pour ñu taal leen mais tout est connecté mooy waxal jàmm ak backupam d'ailleurs semaine dernière techniciens yi ñëwoon nañ pour euh, mën a taal courant bi mais ñooyu lépp pare na mais bu weesoo loolu huit yi fu mel ni ak yaay amuloon ko ci suñu reñ la amee courant en 2014 la am courant ndéeg 2014 la am courant mbomboy 1 noonu mbomboy 2 noonu ngeme isa noonu mais également fi nga xamee ne que moom mooy njeejeng noonu njeejeng 2 noonu donc kon jàpp naa ne euh, liggéey boobu yëpp def nañ ko fi te parewuñu parce que bu weesoo tey li nga xamee ne que def nañ ko état def na ko ci PUDC te ñuy xaar pour poursuivre chemin boobu fu mel ni ba mbel xawul 1 ak mbel xawul de parce que mooy les deux seuls villages yi des tey ci commune Ndondol ci 16 chef lieu de village laay wax yu amagul courant ñu ngi ci liggéey ak état bi pour que loolu am mais bu weesoo loolu ñun am nañ benn programme triennal dañu def un un plan triennal euh, de de l'ex d'extension courant ren lañ ko commencé 2021 incha allah ci budget bi defe naa ne fii ak quelque temps travaux yi dina commencé ñu ngi ci marché yeeg yooyu di ko monter euh, plan triennal boobu dafay dafa ñuy permettre tey chef lieu de village bu am courant ñu xool amoo ya nga xame ne que nii tey jege nañu euh, basse tension bi wala haute tension bi ñu yóbbu fa courant ren dinañ commencer par le les hameaux de Mbomboy fi may wax ak yow yi nekk ci village de Mbomboy 1 ak Mbomboy 2 muy sept hameaux au total yépp danañ ko électrifier cette année incha allah mais dans le Ndiédiène également il y a un hameau qui bu ñuy yóbbu courant bi ci château do bi dañ koy dañ koy romb dañ koy boolewaale également ci électrification bi moom ak daara ji benn daara bu Cheikh Ndigal seen def foofu yooyu ay amoo la yoo xam ne dañ jege château d'eau bi dañ ko ciy boolewaale bu ñu fa jógee en 2022 programme boobu dañ koy dawalaat fu mel ni que Ngeme Issa ay amoo yu fa nekk jege basse tension bi muy mu mel ni par exemple Ndukura mu mel ni Ngeme maalik ak yeneen ak yeneen ñu ngi koy étudier fu mel ni par exemple euh, Kër Maar euh, Kër Julde ak Njaañ Sow mën nañu xalaat ne bu daara ji tàkkee war nañ ko fu mën a jële yóbbu ko fa en tout cas def nañu prospection boo demee Bakapom également fu mel ni Kër Birane Ngari fu mel ni Sobem yooyu yëpp ay basse tension yi jege na lañ war nañ ko fu muy fu mel ni ak yaay ngokk nu nga xam ne des na fa pour éclairage public loolu sax xëj na moom foofu moom du nekk sax un programme kooku moom du jar sax un plan yooyu parce que déjà courant ba mu ngi fa yooyu ay extension lañ koy def donc vraiment am nañ un plan triennal de d' extension du courant ci yëpp loolu ren lañ koy door incha allahu rabbi beneen bi may jeexale mooy wàllu li nga xame ne que mooy santé bi ñu ñëwee santé également dañu fekkoon mu sooxe defe naa ne toujours damay tudd yaay parce que foofu lañ njëkki suñu yëpp bi ñuy ñëw ay yaay euh, la maternité amuloon clôture ñun ñoo ko clôturer le poste de santé de ak yaay defe naa ne bi fa bi fa bi fa autorités yi ñëwee mujj ko ñëw évaluer fi ñu ko fekkoon ak fi ñu ko yóbbu ñoom dañ ko note tey ku fa dem da ngay xam ne changement radical am na dans le sens positif parce que dañ ko réhabiliter totalement te pareeguñ ci parce que am nañu un projet boo xam ne que nii dañ fa bëgg a yokk ay salle d'hospitalisation pour que lii mën a kii comme ni ñu ko defee ndondol daaw parce que ci budget daaw bi ndondol tabax nañ fa benn salle d'hospitalisation boo ne nii juróom-ñetti lan lay jël actuellement ni surtout que dañu nekk ci contexte pandémie tabax également case de santé buñ mbel xaw bu buñ euh, ngeme isa depuis 91 la gëjoon fonctionné ñun ñoo ko tabax réhabilité ko fi may wax ak ni am na ñetti case de santé yu ñu war a ubbi wandoo ci 2021 bi tabax nañ leen équipement yi def nañ ko ci budget 2021 bi muy ndéeg muy Ngéejeng muy Bakapom sans compter que ci budget ren bi également am nañu un projet pour tabax la case de santé de Waxal Jàmm parce que loolu lu tax ñu koy def mooy su Waxal Jàmm suñ ko tabaxee dañuy nekk à de couverture en case de santé au niveau des villages qui boole ko ñaari postes yi ñu am muy yaay ak ndonul donc santé également fi ñu ko jëlee sori na ba pare am nañu un programme très ambitieux ci ak am na solo met euh, loolu leer na li nga wax lay li ci des ma koy jeexal ak yow ci côté boobu rek mooy ñu bëri dañ ne ministre des ministère yi yore wàllum transport bari nañu fa jaar muy moor Ngom ba ci Omar Youm te ku ne xam na ligne bi dox diggante ndondol jaar Fissel Mbadane dem ba ay caajaay zone yooyu yëpp di benn tali boo xam ne bu sonal askan wi la ay ati ati ati at boobu ba tey ci yéen ñëpp a ngi koy dégg bàyyi ko fa ba mu sonal waa popula population bi tout le temps ñu ngi génn di ci ñaxtu yoon woowu tey loo ci mën a wax euh, population yi dëkk waaw loolu moom la pour ñun xam nga défi mooy loo xam ne nii ñun dañ ko def suñu yitte waxoon naa ko ba may def passation de service ma ne population yi Ndondol damay ñaan te dinaa ci liggéey pour que yoon bi président Macky Sall moo koy inauguré mais Babacar loolu damay dalal xelu waa Ndondol kooku moom xëj na dinañ fi dellu siwaat communiqué ci mais ñu ngi ci sept année en 2021 un projet certain boo xamee ne que nii incha allahu rabbi bu bakkan waddul le tronçon Ndangalma Ndondol de huit kilomètres danañ ko defar kooku moom ndàngal ba ndondol kooku moom am nañ ci lu wóor wóor loo xamee ne que ni tey ñu ngi ciy liggéey ak un partenaire euh, man ak le ministre Mor Ngom nañ ci barki boo njaay lu yàgg euh, xëj na buggu ñoo teel a communiquer ci loolu parce que am na yu ñuy regle mais dama ne la na xelu waa ndondol dal ne ren ji incha allahu rabbi comme ni ma ko waxee keroog rek dama ne ren 2021 dañu am ay projet yu mag tali boobu ci la bokk mhm. moo tax à côté tali gis nga je pense que ci mois de mars bi wala avril danañ ko commencer le stade municipal de Ndondol dañ koy tabax parce que on a les xaalis bi ñu ko war a defaree am nañ ko mu ngi trésor fi mu nekk nii ci marché bi la ñu nekk pour lancer ko euh, pour désigner entrepreneur bi pour que mu mun a commencer ren d'ailleurs gis nga nekk délibération bi yàgg nañ ko am 2017 nañ ko plan cadastral bi waa cadastre ñëw nañ fa defar ko te te stade boobu fi ñu ko fi ñu ko natt fi ñu ci kaw tali bi la donc suñu ambition mooy tali bi dafay ñuul en 2021 ci wet gi ñu am un stade municipal sans compter mooy li ma la doon wax léegi ci programme d'électrification mais daal pour ci wàllu tali bi damay dalal xelu waa ndondol xamal leen ne leen comme ni nga ko waxee hmm. ministre Mor Ngom doomu ndond doomu doomu doomu ndàngal ma la te doomu ndondol la doomu Fissel Mbadane la te ñett ñooñu ñoo soxla El Hadj Omar Youm bi nekkoon ci yàlla dogal na jóge na fi doon na ci liggéey liggéey bu mucc ayib mais bàyyiwuñu loolu tey moo tax ma ne la ñu ngi ci un boo xam ne que nii tey fi may yow incha allahu rabbi deux mille vingt bi diggante ndàngal ba ndondol loo xamee ni que ni lu tege ci suñu loxo la pour un linéaire de huit kilomètres bu neexee yàlla. mais mënu ma fay ñëw ba dem te waxuma ak yow ci mbirum làmb sa comité bi comité Sénégal des droits de l'homme ku ne gis na ne ah comme ni ngeen ko waxee ak yelleef lay taxaw tey lamb ji pandémie bi ñëw ñu aj seen ay activités yépp ñu gis ñeneen activités yi di yëngutu sport bi maanaam football basket ay volleyball ak yooyu utal nañ ay solution waa làmb moom amuñu solution ba tey ñu ngi leen di xaarloo ba tey ñu ngi ci salle d'attente bi est-ce que comité bi nga yore nii ñoom. ban maanaam est-ce que waa làmb mën nañ ci am yaakaar ci ñoom parce que ñu ngi leen bopp ba tey daal ñu ngi leen di wax ay huis clos ak ñàkk huis clos te ba tey dara sotteegul est-ce que comité bi moom am na lu ko lii ak làmb ji loo xam ne mën na fi jooytu ay mbiram. waa xam nga xam nga xam nga Babacar euh, euh, tey Covid bi damay wax d'abord ne dafa impacte secteur yi yëpp bàyyiwul kenn. Mhm. defe naa ne muy ñun ñii sax di yëngu ci àq ak yelleef doomu aadama gis nañ ni que tous les droits sont impactés droit économique droit social droit culturel ci sport ci yooyu la bokk. droit culte droit droit droit droit civil et politique sax dafa impacté wu parce que tey yow bu 9h jotee dootoo génn sa kër dem ak dëkk sauf nga nekk ko xam ne am nga autorisation donc pandémie bi moo indi loolu kon bàyyiwul sport bi bàyyiwul waa làmb mais jàngat bi ma ci def également li waral difficulté boobu ci waa làmb parce que da nga wax football ah. wax basket wax volleyball loolu c'est des disciplines collectives maanaam jafe-jafe bi làmb am tey mooy làmb c'est une c'est un sport individuel loolu mooy loolu mooy jafe-jafe bi xam nga discipline collective bokkul ak parce que football tey da ngay am 22 acteurs ci terrain bi mais làmb ñaari mbër ñooy bëree wala ñetti boo tëggee ba tëgg bu bu baree ba bëri 10 combat la mën a nekk bu baree ba bari laa wax na mun na ko sax bañ a egg donc sport individuel te mbër mu nekk dangay ñëw ak say supporters te làmb dafa am benn particularité aussi loolu également war nañ ci def ay réflexion parce que yaa ngi wax huis ñun làmb ni ñu ko gisee muy tradition nga xam ne bu weesoo ñaari mbër yi bëri ci géew bi leneen da cee nekk bàkku yaa ngi ci bu ñuy bàkku public bi également mu ngi ci leneen ak leneen mu ngi ci est-ce que tey méngoo na ak huis clos question la parce que football bi ñu ngi koy def ñu ngi koy réussir parce que xëy na football mën nga à parti du petit écran pendant quatre-vingt-dix minutes parce que football gradin yi pratiquement animation bi ñuy xaar ci làmb bokkul ak football parce que acteurs yi animé làmb mooy mooy football acteurs yi koy football maanaam ñun la ñuy sopp ci football di ko seetaan ci làmb du rek bëre bi mais mooy maanaam tout ce qui culturel mais loolu tey bu ñu ko naree def ci huis clos nan lay nar a demee ji est-ce que tey làmb ni ñu koy tëggee ni ñu koy defee ni ñu koy wonee méngoo na ak huis clos est-ce que psychologiquement mantalement mbër mi nekk ci làmb ji te gisul kenn mbër mi nga xamee ne que balaa moo mën a bàkku balaa yaramam mu mën a tàng dafay gis gradé yi del kooku nan lay demee donc man dama jàpp ne tey réflexion bu bu bu bu profonde lañ ci war a def xalaat bu baax a baax a baax parce que nag mbas mi mu ngi fii mais am naa yaakaar tey comme jot nañu démb vraiment les premières doses de vaccin ah président de la république ñu koy félicité man am naa yaakaar ne tey xëj na loolu dina war a mën a tax xëj na damay wax de ah ñu xool bés bu ñu demee ba programme de vaccination bi ñu teg vraiment law law law yaatu mais pourquoi pas amateur bu bëgg a ñëw seetaan ñu demandé la par exemple un carnet de vaccination soo ko amee mën nga dugg donc yooyu yëpp ay xalaat la vaccin bi ni ko nit ñi di dawee ngay wax waxu non naa ne vaccin bi bu ñëwee du sax doy parce que xam nga aussi mënuñu nekk ci un village planétaire ci bi yëpp ñëpp di vacciné vaccin bi doyul ñun ñu nekk fii bëgg a sëgg ci ay vaccin bi baax na ak baaxul defe ne yooyu moom ay waxu waxu sénégalais la rek comme ni ñu koy waxee sénégalais yi ñoo nekk fii di wax mais vaccin bi li mu wóor te wóor mooy su ñëwee du doy c'est-à-dire du doy parce que kenn ku nekk tey la preuve ñëpp a ngi takk masque ñi ñaa ngi moytu looloo gën a metti kon man jàpp naa ne yenn yi moom peut-être polémique inutile la rek mais vaccin bu vaccin yoo xam ne que te OMS moo ko homologué vraiment adduna bi yëpp ñu ciy vacciné wu man am naa un ami sénégalais qui vit en France médecin mais wax na ma ne jël na ñaari dose yëpp te mu ngi dund normal donc man jàpp naa ne yooyu vraiment débat yoo xam ne que nii la d'ici quelque temps di nga gis ne danañ ko fàtte parce que par première dose yi bu ñu ko defee dinañ gis effet bi kon jàpp naa ne dama ko def lien ak vaccin yi pour wane ne xëj na war na mën a nekk solution ëllëg balaa kenn seetaan Balla Gaye de dugg ci stade bi nga wane au moins ne que yow vacciné parce que tey jii avion man am na dëkk yoo xam même avant Covid bi soo fa wàccee mais soo yorul sa carnet de vaccination nga jël yenn vaccin comme lu mel ni contre la fièvre jaune boo demee Abidjan yooyu mais duñ la bàyyi nga dugg naa ne yooyu yëpp ay xeetu réflexion la mais nañu jàpp ne euh, effectivement tey jot nañu trouver solution ci wàllu làmb ji comme yeneen yi parce que impacté na ko loolu tey làmb ji ñu ciy liggéey également ñi ci nekk également ay borom kër lañ dañuy liggéey mais làmb ji yi dundalul rek mbër yi làmb ji li muy dundal moo bari c'est une chaîne kon nañu ñaan mbas mi gaaw jeex wala boog ñu ñaan tey vaccin bi vraiment mu tas ci réew mi ñu def effet ñi mën a retrouver les arènes mais en attendant xëj na war nañ mën a waxtaan mais loolu aussi dafa am benn solution bi il faut que d'abord bu weesoo mbirum psychologie bi li muy def ci bu ñu defee huis clos mais il faut également que euh, les sponsors ñëwaat parce que bu weesoo psychologie mbër yi nan lay demee mbër mi taxaw gisul kenn war a bëre mais des na également la question du du du du du c'est-à-dire que euh, booy tëgg làmb également mais billets yi ngay jaay dafa am lu mu lay indil mais bu fekkee tey yow amuloo billets yooyu jaay amuloo ay sponsor yu la accompagner mais defe naa ne loolu tey benn benn benn benn benn benn promoteur du ci engagé wu kon man jàpp naa ne war nañu xalaat ci promoteur ci ci ci ci sponsor yi mais également war nañu xalaat un appui conséquent de l'État pour promoteurs yi nga xam ne jël nañu risque pour bégal amateur yi ci ci ci ci ci huis clos boo xool également ni ñu koy defee comme gis naa ay match yoo xam ne que nii boo demee o Cameroun boo ñëwee Sénégal même plus récemment gradin yi dina am ay quelques amateurs yu fi nekk yooyu yëpp système d'organisation la laaj mën nañu xool ni ñu koy organiser vraiment écurie yi également sensibiliser seen seen supporters yi pourquoi pas même écurie bu na def ay sélection supporters les plus exemplaires ñu ñëw parce que également il faut ngay respecter mesures defe naa ne waxtaan am loo xam ne ni mën nañ ci jàppandeegoon en attendant ñu am une maîtrise de la situation pandémique ah, rawatina Sénégal ñu bëri nag ci ñu bëri ñuy dégg ñuy wax dañu jàpp ne ah lii complot la contre jóge ci yéen ñi nga xam ne yéen a yore pouvoir bi bokk ñàkk bokk ak moom parti te mu sonal leen trop ngeen bëgg ko liquider amu ngeen solution bëggut benn solution bi nga xam ne jàpp ngeen ne fi ngeen di jaare pour fay ko ba faw yow loolu loo ci doon waaw Babacar xam nga dafa am yéen ci seen langage lu ñuy wax scoop scoop scoop mooy maanaam nga nekk nga am privilège nekk ci njëkk a wax ak man ci loolu façon télé ak rajo bu nekk wax nañ ma mais du ci wax laa leen wax mais scoop bi du egg parce que euh, damay damay wax rek ne damaa jël décision personnellement ne mbir moomu duma ci wax pour ñaari raison hmm. wala ñett hmm. benn bi tey gis nañu ne que man sama posture avocat la am na lu ma xam ci wàllu yoon te bu ma koy wax aussi techniquement laa koy wax beneen bi homme politique laa te yaa wax ne dañ ñuy tuumaal xëj na tey su ma waxee sama xam-xamu droit ki nga xam ne moom dafa jàpp ne man homme politique bi laa mën na ma féetaleel mën na sax wax ne loolu liñ doon wax gis nga ko ñetteel bi mooy defenseur des droits de l'homme laa également donc ñetti casquette yooyu ma yor tey moo tax pour le moment dama euh, jël décision ne duma ci wax ci loo xam ne ni c'est une affaire bu concerné ñaari sénégalais man dama jàpp ne tey comme comme yeneen sénégalais yi maandu comme man dañuy bàyyi suñu justice réew mu doxal ci mbir moomu ëllëg lu ci tukkee également ñu nangul la suñu justice ci doxal mais duma ci wax parce que mën naa tooñ Sonko du ci wax parce que mën naa tooñ xale bu jigéen bi porte plainte mais duma ci wax également parce que mën naa tooñ ñi nga xam ne sax ñu ngi leen di tuumaal donc moo tax ak te moo may indi ma ne mbirum Sonko ak xale boobu dama koy bàyyi ak yoon bi nga xam ne ñoom ñoo ko nekk di ko doxal lu luñ ci def rek man dëpp naa ca xëy na nag bu ñu demee ba génn ci homme de droit bi défenseur des droits de l'homme bi homme politique bi bañ justice def la muy def ba pare dana ci génn wax ci li kon nag dara changé gu fi euh, waaw confiance bi popula peuple sénégalais bi amoon tey ci président Macky Sall bu yokkuwul du wàññeeku kon defe naa ne nag euh, loolu rek réponse la pour sa question bi am na solo kontaan ci yow men jërëjëf maa ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf